ñu tabax ba yaakaar ne ne dinañu am ba pare ñu xëy benn bés rek kenn ñu jox ñu kayit kenn ñu jaay ñu kenn ñu ne ñu lii lañ leen di may mbaa ni ngeen di def dañoo tëb rek indi seen li ñu daane lépp lu ñu defaroon fii dañu daane ko amul négocier amul waxtaan amul dara nu nag nu di ay néew doole di jooy loolu lu tax ñu def ko ak ana ku mën jiitu ba ñu jéem na koo fajal dañu fajal ñu ko ñu wutal ñu dëkkuwaay bu ñu wutalee dëkkuwaay mbaa ñu ne ñu fii ngeen am jëf leen ko ay ngi ni ñu lo rek ñu tax a fi ne ñu ñoo nga am jaaxle mënatuñoo jaay lek mëna mënatuñoo suur mandi ci amut kenn ko xamne ki am nga jamm bañ tojee fi ba amut kenn ko am jamm ñu ñoo ak suñu njabot ñepp ngi joy guddi ak becc ndax xamuñu fu ñu sës ak kuñ koy tu bañ pacc ko léegi nak ñu di ko wax Macky Sall lañ bëgg mu yëg ko da ba xam ndax mom limuy dimbalé nit ñi ndax da ci bëgg boole di toj ay tabax di dem ak dañu bëgg nit ñi di joy mooy hmm? ñu ñoo ngi am yaakaar ci moom ñu mu dinu dimbale ñun ñi néew doole mu dinu dimbale waaye ñun de dañoo néew doole ñu dañu ramassé rek mel ni koy rey nit rek mm-hmm. waaw ñun loolu la ñu taxawee fii tey fii la ñu yendu tey ba ngoon fii la ñu yendu ba suba duñu tàyyi duñ sonn dañoo ñàkk pexe xamuñu ñu ñuy def ndax ko dem ba am yaakaar te xamatoo ci benn yaakaar te soosoo ci kenn gisoo kenn xanaa bay bay dégg ba waxi Macky Sall rek bañ dégg waxi Macky Sall rek ndax dafa dee wax ak nit ñi ne ba yor naa njaboot gi mm-hmm. ak njabot gi li ci gën bu kenn di joy ci ñoom mu seet li ngay joy lan la bu ko mëne paj paj ko bu ko mën da paj joxe ca benn wax wala mu yobante ndaw ñu gis ko looloo ñu taxa jóge fii tey bu njaboonu ñëpp nañ dee mu xam ne lépp ak njabotam la. dara toogaluñ fi loolu lan suñu kër ñu toj mun ñoo xëy su ngoon di dang dange mami di wax ak yeen ni étudiant la damay dee di def samay business sama yaay lu muy jaay ma boole ko ndajale ko ñu yëndu terrain lu cher may dajale ak sama yaay pendant ay cinq ans muy dajale di xëy di daanu di jaay marché lu mu am man may xëy di étudiant laa de mais damay dafay business tooguma rek di yaakaar sama jàngat parce que xam naa amul amul kenn ku may fayal damaa ñàkk sama baay teel a ñàkk sama baay man rek may doom may doon benn doom bu góor si sama yaay may xëy di ko jaayante ak moom ngir jàppale ko jënd terrain lu cher. ñëw tabax si dépense si plus de cinq millions benn bés ñu jékki-jékki rek ñëw ñu ne ñu tojal nañ leen seen kër ñun xamatuñ fii fu mu toll nii fan la ñuy jëm ak lan la ñuy def xanaa xamatul doole yi jàpp doom doomu aadama di leen def lu bon rek di xëy suba ngoon di ñu def li ñun la ñu fan la ñuy jëm fan la ñuy jëm Sénégal ban Sénégal la xanaa du Sénégal ñun ñoo ko moom Sénégal ñëpp la mu toll nii néew doole sonn nañu néew doole sonn nañu lu ñu wax ñu lan borom am am yi rek ñooy am mais boobu loolu ba kañ ñun kañ la am ñun kañ la am kañ la ñuy changé mhm. ak Sénégal bi loolu lu jëm kanam bëgg nañ nag lu ñu jàppalee nag ndax suñu ndax lii lii lii ñu jóge fi bu du loolu suñu bakkal lañ fi teg man ñoo ngi nii depuis démb ñoo ñu fii duñu lekk du ñu naan jaral lañu ko grève de la faim la ñuy def bu ñu fi jaree ñu bàyyi suñu bakkan ñu bàyyi ko fi waaw bañuñu fi dara dara ba dee bañuñu ko fi waa Soprim waxuñu dara ñun gisuñu Soprim bu ñu gisoon ku ñu ñëw avisé nañu waaw situation bi léegi lii la wala ñu ne lañu waaw léegi-léegi lii moo fi xew li ngeen dara def mais jotuñu dara dañoo waaye ba nit yi tabax ba am yaakaar dëkk ñu teg seen yaakaar ñu teg ko si lan ñu ko si fan ñun maa ngi sama kër ñu dem naa ba tabax bay waaji dëkk ma yàlla ñu ñëw tojal ma ko damaa sonn si luwaas sama papa gaañu na sama yaay laa nekkal man lan laay def fu mu toll nii sama jàng baay naa ko fu mu toll nii dama tuma université maa ngi nii toog problème bi bañu ma si dara bu mu yaboo ma xoolal sama année yu yëpp brûlé sama fu fu mu toll nii fii bañu ma fi dara dem ba dee rek bu ma jaralee sama bàyyi sama jàng sax ngir lii jaral na ma ko parce que mun maa xëy sama yaay di jaay suba ngoon fu mu toll nii xamul sax muy def fu mu toll nii xamul lu muy def laa fu mu toll nii mu ngi tëdd kër ga feebar boo bëgg a dee munul def dara dara dara dara fu mu toll ko def fii xoolal maire yaa ngi nii fii ñi ñëpp ay njaboot lañu ñi ñëpp ñii di jaay fonde ñii di jaay jarte caaf ñii di jaay lépp lépp lépp laa wax di dajale daan seen doole ba tay ñi yii nii ñu ñoo tojale lu ñu am lepp lepp lepp ñu takko ci ngir lan ñun sonu nañu sonu nañu sonu nañu wor na yalla sonu nañu te kuñ japp rek lañ bëgg jamono bi sonu nañu sonu nañ trop trop trop trop trop trop président Macky Sall son excellence Macky Sall ñoo ngi lay ñaan yow so nguur ak ci premier ministre bi bun Abdullah John ñen ñoo ñu xol situation bi ñun ñi wax ak yéen nii ay eh, Sénégalais lañ comme yeen ay eh, Sénégalais lañ tamit comme ñeneen ñëpp ta am nañ droit ñoo kaas ñu suñu jàngoro comme vous l'avez vu est-ce que ces étudiants méritent cette injustice est-ce que ces braves femmes qui sont là méritent ces injustices est-ce que ces vieux méritent ces injustices moi je dis non et je continuerai encore une fois à dire non. rien n'est plus criminel rien n'est plus méchant rien n'est plus malhonnête passer ici à Thiès, ça c'est de la lâcheté. Ça reflète même de l'ignominie. Nous nous demandons aujourd'hui encore une fois à quel état se fier. On est en train de massacrer les populations sénégalaises. Est-ce que cela c'est normal Est-ce qu'aujourd'hui, à bavure de ces gens-là, est-ce que mérite d'être là en pleine canicule moi, je dis non, et je continue encore une fois à dire non. Et nous sommes prêts à y laisser notre vie. Jusqu'à ce que nous puissions avoir une satisfaction. Non, mais c'est évident, parce que c'est des centaines et des centaines de millions qui ont été dépensés ici. Et vous trouvez cela normal Au lieu de bénéficier de la protection de l'État du Sénégal, ils sont en train de nous asphyxier. Est-ce que vous trouvez cela normal on ne fait pas de la politique politicienne, non. Ça, c'est pas de la politique. Mais c'est une réalité. Parce que les faits sont en train de se parler d'elles-mêmes. Les choses sont là. Ils sont en train de se parler d'elles-mêmes. Est-ce que vous trouvez ça la normale Moi, je dis non et nous ferons face à cette injustice. Parce que devant le mensonge, l'injustice, la résistance est un droit et nous faisons face. Et nous n'accepterons plus que ces énergumènes viennent encore une fois ici pour faire quoi que ce soit. Nous ne l'accepterons plus. Et il est temps à ce que Macky Sall et son gouvernement règlent ce problème le plus mm-hmm. rapidement possible. Uh-huh. Sinon, Uh -huh. Sinon, vous l'avez entendu, c'est 286 maisons. Par rapport aux mensonges de la Supreme qui ont voulu nous discréditer en disant que c'est une cinquantaine de maisons. Même si ça aurait été ça, il devait ils devaient envoyer des sommations aux gens. Mais on n'a rien reçu parce que certains sont de l'opposition, d'autres c'est des gorgolous. Mm-hmm. Ils n'ont pas de force ni rien. D'autres ont fait des prêts à la banque. Mais quelle injustice, quelle honte. Mm-hmm. Quelle honte. Au moment où nos enfants euh, sont en train d'être tués, d'être sacrifiés, ils n'ont aucune protection de l'État du Sénégal. Mais il s'agit de cacher ou de, jeter les gens dehors, ils sont prêts. Et vous trouvez cela normal. Mais nous, n'accepterons plus d'être marginalisés par ces criminels. Trop, c'est trop. On en a marre de ces injustices-là.